alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala majmaci shu'un wa haqiqati kunhi sirrihi almasun sayidina wa maulana muhammadin almaymun wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin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 jox leen ko ci kenn ku ci nekk euh, fa mu nekk bokk rajoom ci wal fajri moo xam dafa sàngoo mbàjjeem bokk ca wal fajri moo xam dafa nekk ci ak caawoom ca sàmm ga bokk wal fajri ca nopp ya moo xam dafay xëy wala mu nekk ca marse takk ab kaskeem wal fajri nekk ca moo xam ma nga ca kaaru njaganjaay ak tataayaak rapide ya moo xam jigéen ya ca dàmbaay jën yaak marché moo xam tamit tabaarakallaahu ña ca bureau yaak fuñ mun ne kenn ku ci nekk fekk naa ko fa jox ko loxo maanaa def mu def ak moom mu saafaxa jox ko juróomi baat yooyu di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di ñaan mu delloo ñu ko tamit lima ko jox lim ñu delloo tamit yàlla na ko yàlla dellooxaat ci suñ kaw ñun ñëpp mu jum mu jum maanaam mu jural ñu jàmm ju amul àpp ci suñu àdduna géeg suñu barsaq géeg suñu àllaaxira gi waaye tabaarakallaahu mu jural ñu yërmande ji sottee ko ci suñu njaboot sottee ko ci suñuy jëmm soppe sottee ko suñu liggéey yeeg li ñu yàlla dénk waaye tamit jural ñu barke boo xam ne tamit amul àpp di jëm joo xam ne bu tuutee man lu bëri lu dugg manal ko bu bëree nag moom tabaarakallaahu man manam du am limite maam xalifa Niass daan wax ne barke du jëmm waaye jëmm ju nekk ñi xam ko barke du jëmm waaye place bu mu nekk ñi xam ko barke du jëmm waaye xalal ju nekk ñi xam ko barke moomu nag xam ne du jëmm waaye lu jëmmu moo la jëmmal yal na yàlla jëmmal ko ci suñu jëmm yi jëmmal ko ci suñu njaboot yi jëmmal ko ci suñu alal yi jëmmal ko ci tabaarakallaahu kër yi ak ci palaasu liggéeyuwaay yeeg lu mu mun di doon yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na yàlla boole eh, defal ñu ko ma continuer rek di sof ak yow ci li ma sosoon ak yow ci ne daal kuy tawatati tawatal jëm ci kuy dudd ku dul deeki kuy tawatati tawatal jëme ci ku am kartan ku dul tëleki kuy tawatati tawatal jëmee ci ku xoomal ku dul ñàkk ki kuy tawatati tawatal jëm ci ku tabe ki nga xam ne soo saxut ca buntam ba di ko fëgg takk morso yu xonq ne ko may ma may ma mu mu jéppi la kon kuy tawat tawatal jëm ci xani yu kooka mooy yàlla waaye koo waxati woomalut ki woomal kenn la mooy yàlla xoomalam nga nekk lu matale ci lépp ba tax na ku bëgg a xoomal xoomal gu matale ci lépp ñaxtul jëm ci yàlla mu xoomalal la ci wér yaram mu xoomalal la ci jàmm mu xoomalal la ci sécurité mu xoomalal la ci naataange mu woomalal la ci koom-koom ak poñetam àdduna mi nga soxla kuy tawatati takk morso yu xonq dawal jëm ci aji dund ji nga xam ne du dee nga sukkandiku ci moom waaye koo sukkandiku kudul moom bu dee nga mujj wéet su ko defee contimit kuy tawatati tawatal jëm ci borom kartan gi nga xam ne kartanam nga limité wut du lu ñu limité waaye moom mooy kii kii limité kartan yi ñun ñëpp nag buñ dawee jëm ci kii rek tabaarakallaahu dañu am jàmm am naataange am xéewal am yokkute te moom moo doon wax yonent bi ne ko wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani waay waay samay jaam yi buñ lay laaj ndax man dama sori bañ war ma joxor wala ndax dañ ma jege bañ war a déeyanteeg man xam leen ne man ku jege la wut joor soo may déey rekk dégg naa sa kàddu boo ma jaaree ci bunt ba ñu war a jaaree ci ñaan li nga bëgg lépp ma defal la ko su ko defee kon nag nañ daw jëm ci loola ah, dawee ci timit fexe ba góor góorgóorlu ci def ndigal yi waaye dawee ci timit fexe ba góor góorgóorlu bàyyi tere yi su ñu nekkee ca ndigal ya li ñu bëgg lépp daw wut suñu suñu bàyyee tere yi liñ doon ragal di ko sib bañ ko timit mu daw wan ñu gannaaw kon daal dama bëgg a wax ne nañ lu nekk ci li ñu war su boobaa yàlla boppam moo ñuy musal ci li ñu wër boole kook timit mosal ñu ci li wër te ñu bëgg caa mos li ñu wër lépp ñu bëgg caa mos mu mosal ñu ci li ñu wër lépp ñu bëgg caa mucc mu musal ñu ci yii daal ku ca rek am jàmm waaye bañ a tawat nag jëm ci ku lottu ni yow man manam nekk lu ñu limité kartanam nga nekk tamit goo xam ne ci doxadi rek ci ak lompañ la sosu ci lompañ tamit lay mujj koo mën tawat man man bu ko man di gane dafa gane si rek léegi tey mu dem juddoo hut ko te du ko deyaale moo waral doomu aadama ji nga bëgg a tawat jëmee ci moom ku mën di doon ci lott la juddu dañ ko doon manal juddu na mënul dara lu dul jooy ak yàq boppam ñu koy manal ci di ko nàmpal di ko manal di ko boot di ko manal di ko jàngal toog di ko manal di ko jàngal dox di ko manal di ko jàngal waaxu di ko manal di ko jàngal wax di ko manal di ko jàngal nu ñuy lekkee nu ñuy naanee di ko ko xol di ko jàngal nu ñuy jàngee ba xam ba mu mujj nekk kaadar nekk waxambaane wu am kartan kartan bu limitiwu ñëw gane si ko du ko mujjee bu dee timit ku ñuy mënal lay doon dee na mënatu dara sang boppam sax mënatu ko comme nam ko juddoo woon ba mu juddoo mënutoon na sang boppam dañ koo sang dee na mënta sangati boppam ba mu dee ba mu juddoo mënutoon Euh, maanaam euh, sàng boppam dee na dañ koo mënta sàngati boppam dañ koo sàng solal yére boppam mënu ko ba muy judd dañ ko ko solal dee na tamit dañuy summi yëre mujj ko sàngee ko yëre dëgg-dëggalam yi ba muy juddu tamit mi ngi noonu mënutoon a dox mënta toog mënta waaxu mënta wax dañ ko koo manaloon ci yañ ca mën a manal yañ ca manal ci ñi boot ko léeg-léeg ñi leewu ko léeg-léeg ñi xenu ko dee na tamit loolu lépp mënatu ca dara dañ koy mujjee xanu rek dañ koy mujj yëkkati ko gannaaw bi ñu ko sangee sangu ko teg ko ci jaag bi yëkkati ko tamit dem dénk ko kër ak borom maanaam euh, cosaanam gi nga xam ne mooy titre foncé boo xam ne kenn du ko xëccoog yow sama titre foncier beeg sama kër gi ak nangam ak nangam kër gi ñu dut xëccoo muy titre foncé bi gën a wér mooy bàmmeel bi ci des rek jiituwut ci yow te du mujj ci yow bu dee titre foncier am na ku ko ku njëkkoon a nekk. dafa toxaloo ci moom ñëw ci yow léegi tey nga toxalu bàyyi ko fi mu toxalu jëm ci ñeneen waaye titre foncier bi nga xam ne boo ca xasee nekk tabaarakallaahu fekk yaa nga fa kenn du la fa fekkati la yonent bi waxoon ne alxabru xubusun maadaama saaxibuhu fii xabru mooy titre foncier bi gën a wóor bu ci nit ki xasee ne kenn amul droit di ko sulli di fa suul keneen kon booba mooy bi gën a wér su ko defee kon la ko fa yóbbu yëpp dañ ko ko manal mënta sang boppam ta sàng boppam jullee gën a baax mënu koo defal boppam mënta ñaanal boppam ak ya ca aju yëpp ñu dañ ko ko mujj defal ko ko ba dénk ko boromam kon maanaam kooka nag boo bëggee yooxu sa kàddu jëmee ko ci moom du sotti yooxul jëmee sa kaddu ci ki nga xam ne man-manam ba ak koom-koomam ga ak kàttanam ga duhut lu limitiwu dafa jooyal jëm ci lépp moo tax mag ñi ko déggoon musuñoo yëkkati seen loxo di ko tàllal di ko jëmee ci mbindéef waxoon naa la mag mu mel ni yonentu yàlla noox ba mu tàllalee loxo ya ci yàlla rek ci rabbi xfir lii wali waalidaya wali man daxala bayti mag mu mel ni yonentu yàlla ibrahim bi mu tàllalee loxo ya jëmeewut ko ci kenn ku dul yàlla ci ilmuhu bi xaali yugnii nii an suaal yi yonentu yàlla Muusa Firawna ak kàccor ga ak muy tàllalee loxoom ya jëmeewut ko ci moom ci yàlla rek ne rabbanat mis ala amwalihim wasdud ala qulubihim falaa yuminu xataa yaraw azaban alim gis nga ko tamit yonentu yàlla Isaa ca baabirata yaag yahud yu bon yooya dem jamono ante nag moom bëgg koo mbugal ak la ca aju wallaahi ba mu tàllalee loxo ya ci yàlla dong ko jubale ba mujj ñooñaa mujj alko moom yàlla mujj sowee ko ci wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu yonentu baag noon yu bon yam dëkkoon ak makkaak fit yu rëy amoon ak mbon gaag caay-caay gaag la ci ajoog fexeel ga ak yahood yam fekkoon madinatul munawwara ak banu nadir ak banu qurayza ak ña caaju ba mu tàllalee loxo ya yàlla rek ak ñam fekkoon ca taayif ne allahuma inni ashku ilayka dufa quwati wa qillata xiilati yonentu yàlla yaqubaat nattu ba ko daloon lépp ba mu tàllalee loxo ya dafa ne maanaam innama ashku basi wa xusni ilallah jëmul ci kenn ku dul yàlla looloo waraloon timit suñu mag ñu tedd ñi maami leer yi musuñoo daw di dimbandikoo menn mbindéef yàlla rek jëlal Seydi Ahmed Tijaani Cherif radiallahu taala bu nit ña dawaan jëm ca moom di sàkku ji ñaan ñii di daw bëgg mu xettali leen ak jafe-jafe ya wallahi da dégg mu ne rek kullu naa muxtaajuun ilallah ñun ñëpp dañoo xaajoohoo jëm ci yàlla waaye nag yàlla moom mooy ki xaajoohoo jëm ci kenn ñun ñëpp ci yàlla dong lañ xaajoohoo jëm ci moom kon gis nga ko ay mbiram yépp ci yàlla rek kullu naa naxtaaju ilallah kese gis nga ko xaadimu rasul Cheikh Ahmad Bamba jamono ji fi tubaab beeg nekkaat doole yañ amoon ak borom nguur yi dafa ne walastu amudu yadan ila nasaara man rus naa jël sama loxo di ko tàllal jëme ko ci nasaraan yu bon yi nga xam ne jaami xalal lañ ak daraja soxluhuma seen ndimbal gis nga ko tamit maam alaaji Malick sikaayatu bu rëy ba mu defoon dafa ne rek ilallaahi ca ba mu doon wax ne ilallaahi maanaam maa ngi tawat jëmee ci yàlla kurbat yi ba wax jay jeex dafa ne fama li xayrullahi jaabiru kasrati man mii daal maa ngi tawat jëme ci yàlla sama sama damm-damm yi nekk ci man di ay jafe-jafe ci ay naqar kenn mënu ko jàng ku yàlla kon duma tawat jëm ci kenn maam xalifa ñas ci xasidaam bu siiw ba dafa ne fama li man arju siwaaka li xaajati fama lii illaa inda baabika waaqifu mu ne yow yàlla de samay aajo duma ko tawat jëme ko ci kenn ku dul yow bunt yi bëri nañ fëgguma ci benn sa bunt bi dong laay fëgg fëgguma binta bunta président naan dama am audience fëgguma bunta ministre naan dama am audience fëgguma binta bunta maanaam gouverneur naan dama am audience waaye man benn bunt dong laay fëgg bu bunt booba ubbeekoo bunt yi ci sama kanam yëpp dañ bokk ubbeeku te mooy bunta rabbul izzati jabarut gis nga ko tamit cheikh al islam haaji ibrahim boobu buntu la soxoon dàkk timit di ko fëgg góor ak yàlla gu tedd ga mawlaaya haaji amadou dem boobu buntu la saxoon dàkk di ko fëgg góor yàlla gu tedd ga Mawlaay Xaaji Omar Ndaw ca yawaa xiitam ba booba buntu la saxoon dàkk di ko fëgg naka noonu timit suñu maam maam limaamu yooya buntu dong lañ saxoon dàkk di ko fëgg fama lii man arju siwaaka li xaajati fama lii illa inda baabika waaqifu wax ja jeex su ko defee kon nag bunt boobu mooy buntab yàlla bi sax ca dàkk di ko fëgg bu hubbeekoo moo lay hubbil yeneen bunt yi nga bëgg mu hubbeeku mag ñi nag siru bi dong ci la ñu rawee mag ñi benn bëgg-bëgg lañ xamoon muy yàlla bëgguñ dara bëgguñ doom bëgguñu soxna bëgguñu alal bëgguñu daraja bëgguñu mbooloo bëgguñu dara yàlla dong lañ bëgg bañ bëggee yàlla moomu nag sax sa buntam ba dàkk di ko fëgg bañ amee yàlla rek la yàlla xam lépp ñu xam ca ndax yàlla moomu xam ka moo leen ca fëgg ba ko yàlla yàlla lépp la xam nag yàlla moom xol yi bañ fëggee buntam yàlla ba soxla ko moom kenn bañ amee yàlla yàlla jox leen xolu nit ñi naka noonu tamit yàlla tàggatal leen koom-koom yi ñu daw di leen wut si ñu dund ci koomal te mooy ak doylu génn àdduna seen bàmmeel yooyu mujj joxe dépense di régler problème yi moo tax ma ne ñun ñii kenn gënul ñoo yaafus yaafus a yaafus ba carte d'identité sax mënoo koo lijjantil sa bopp moo ñu dal yaafus a yaafus ba passeport mënoo koo lijjantil sa bopp yaafus a yaafus ba oto booy dawal mënoo koo jënd yaafusa yaafus ba buñ la bàyyee sa bopp depanse bu sax mënoo koo am yaafusa yaafus ba billet avion bëgg tukki mënoo koo jënd lii lépp maami leer ya jëloon seen bopp jox ko yàlla tey ñoo ñu koy regleel te ñu ngi ci biir si ñu ngi ci seen biir bàmmeel nuñ ko reglee regle ga mooy li ëpp ci ñun ku ci doon dem di regle d'identité mi gën a xeebu nga présenté wu commencé sant wi nangam ñas la di sant wi nangam tudd ay sant mu ne xanaa yow diwee sa maam tudd ko nga ne ko waaw waaw moo jur sama papa wala moo jur ki jur sama papa mu ne eh, kooku de ku baax la woon dégg naa ay mayam ca saasa yow mu génne la ca rang ba bu waroon a am fukki fan mu régleel la ko ci benn fan su boobaa bul jàpp ne moom moo la ko régleel sa maam moo la régleel sa daan bi tamit ci biir bàmmeelam nga bëgg passeport ba noona kuy sa maam mu ne diw wala kuy sa sëriñ nga ne diw nga tudd maanaam présenté wu ca moom waa gi ne la maag yow a bokk kër gi wala bu ngeen ko bokku ta fekk yéen ko bokk tamit mu ne ko ku baax la comme mooy sa sëriñ rek nangam ak nangam mu réglé la passeport ba ci benn fan wala ci ñaari fan ngay toog nag di tiitaru fekk na yow sa sëriñ ba wala sa maami leer ja moo la réglé sa passeport bii ngay tiitaroo nga bëgg billet yaay kan mu ne la xaw leen nga ñëw ca loola dem tukki yëpp tabaarakallaahu fekk moo ko réglé ca oto ba tamit noona ba nga bëggee tey ca ñu dimbale na ca duwaañ ba di duwaañi oto baag la ca aju nga fekk fa ku baax tabaarakallaahu di dundee say leer yi maam walla muy dundee sa leeri yu sëriñ ci maam yu baax ci loola mu jaar ca ba dimbali la ci lu bëree bëree bëree bëri moo tax ma ne ñun ñu yaafus lañ yaafus nañoo yaafus ba lu ñuy regleel suñu mënuñoo regleel suñu bopp tous lu fi reglewu yàlla nga ko jaarale ci suñ maam yi leer yi suñ sëriñu leer yi nga xam ne buntam yàlla ba dong lañ nekkoon di ko fëgg ba bunt ba ubbeekoo maanaam ñeexal leen ubbeeku ñeexal seeni taalibe ubbeeku ñaal seeni i sët ubbeeku ñaal seen sët sëtaat ba ubbeeku ñaal seeni i cosaan ñun nag ngi nekk fi rek bunt bu nekk nga bëgg a fëgg ku bëgg a fëgg bunt yëpp dana ci am bunt yoo xam ne bu ubbeekoo du la fa fekk yaaram dañuy wax ne man qaraa al baaba walaj walaj sax ci benn bunt di ko fëgg bañ a bañ a bañ yokkat yàgg-yàgg bunt ba ubbeeku rek nga dugg waaye boo bëggee fugg bunt bi bëgg a fugg bëgg bunt bale bu ne nga bëgg fëgg dana ci am yoo xam ne bu ñuy ubbeeku du la fa fekk su ko defee kon nag bunt bi jara sax dàkk di ko fëgg benn bunt la mooy buntab Mawlaana tabaraka wa su ko defee kon nag buntu baangoog ci la mag ñi rawantee ci lañu raw ci mit ku ñu dut ñoom di góorgóorlu fëgg bunt ba ci fuuglu tabaarakallaahu melow yàlla yu màgg yooya ci suñuy wéet di fuuglu melow yu màggam yooya ci suñuy wéttaliku di fuuglu meloom yu màgg yooya ci suñuy wax ak suñuy noppi ci suñuy nelaw ak ci suñuy yeewu waaye góorgóorlu tamit di dimbandikoo kartanam gu màgg suñuy ñaan di dimbandikoo kartanam gu màgg googa ci suñuy soxla di dimbandikoo kartanam gu màgg googa ci suñuy liggéey ci suñuy yëngatu ak ci suñuy dal boole koog tamit di wéttalikoo turam yu màgg yooya suñu ñu toog rek fexee jël turam yi ngi ju ñuy wéttali ndax turam yooya ko ñuy wéttali doo wét mu nekk ñetti junney tur yàlla ëpp ñëpp turandoor ñetti junney turandoor la am ci ay tur yoo xam ne boo ko ci wooyee mu huyu la mu jël junne bu njëkk ba malaaka yi rekk ko xam junneem ñaareel ba yonantu rek ñoo ko xam junneem ñetteel ba nag mu tasaare ko ci ñeenti téeréem yi diggante tawreet ak linjiil ak zabuur ak furqaan téere ba la ñuy tuddee zabuur ñetti tu téeméeri turu yàlla ma nga ca trois cent tawreet ñetti téeméeri turu yàlla linjiil ñetti téeméeri turu yàlla alquran mii di furqaan di muhaymin doy walis bépp téere te benn téere mënta doy walis ko téeméeri turu yàllaa ngi ci ñii ne téeméeri turu yàlla yu manqué benn yooyu yëpp boo ko boolee muy junneey muy ñetti junneey tur woo ko ci woo mu wuyu la ku la doo awa doo rahmaana ayama ta na fa lawul asmaul husna su ko defee nag kon nañuy wéttalikoo walilahi alhamdu wa turam yu màgg yooya nga xam ne ku koy wéttalikoo doo wéet ibnu abbas wax ca wax ju rëy ne jaamu yàlla goo waxati yàlla wutal amal na ko ngànt goo xam ne bu la dabee jaamu yàlla ga wàcc na la ba mooy wéttalikoo turam wi julli li muy foor foor am na ngànt yoo xam ne bu la dabee julli wàcc na la ta amoo ca bàkkaar yow miy jigéen gi may déglu boo yoree reegal walla nga yore deretu gësin julli warul la wérul la taamoo ca benn bàkkaar naka noona tamit saa yoo demee ba teqali ko sa xel mi yow góor gi yow jigéen gi julli waratul la wératul la taamoo ca benn bàkkaar boo boo boo laabut ci njàpp walla nga laab ci tiim tabaarakallaahu julli gi mënoo ko def yaa ngi nii amoon ndox moo laabee amuloo suusoo tiimee julli gi wàcc na la amoo ca benn bàkkaar mi ngi mel ni koo xam ne dañ koo tëjoon ci kaso goo xam ne dañ koo bétonné wala ñu karale ko amuloo ndox moo jàppee amuloo suusoo tiimee wala sax nga doon dox ci àll bukki dàqe la nga yéeg ci kaw garab gexe ga fekk la fa ak timis ja julleeguloo ko woon xam naa fajar ga sax fa la lay fekk bala ngaa bala ngaa yeewu moom bala ngaa wàcc garab ga nit ña dem ñay dem tool ñëw fekk la ca toolee nga door a wàcc ñetti waxtu yëpp fekk la fa bi ngay wàcc ak jant bi moom fenk na te su boobaa muxtaar maag dara wër yóbba yëpp dem nañ ñeenti wax la ci ngir mi wax ñii ne ni nga manee ca foofa soo wàccee fay nii na julleel nanga nga manee foofa doo fay ñii ne bul julli bàyyil noona boo wàccee rek nga fay Maalik ak boppam di boroom ngir mi gën a dégg ñépp ñu nekk ci ngir mi ci ashab ak lam wax ibnu qaasum ak lam wax Maalik ne du julli du fay comme amuloo suus tiimee amuloo ndox moo jàppee bukki moo la tongal ci garab waxtu yàlla fa fekk yëpp julli ji waratut la julli ji wér a la dañ laa tëj ci kaso goo xam ne dañ koo karale wala ñi ne ko ba amuloo suuf soo tiimee amuloo ndox moo jàppee soo ne may leen ma ndox kenn du la ko jox dara du la fa fekk ci ndox mënut a sotti su boobaa maanaam maalik nee na julli war a la julli wér a la même ndox mooy naan rek fekkee moo la fay fekk te boo ko jàppee mar ray la sariya dafa ne naanal ndox ma te su boobaa julli gi comme amatuloo foo jàppee amatuloo foo tiimee Maalik nee na waratul la wératul la muy tekki ne jaami yàlla yi ñuy jaamoo yàlla yu ci bëri bu ca am na ngànt bu la ca dabee waratul la wératul la wax naa la julleeg ngànt jigéen nga wax naa la julleeg ngànta góor gaag jigéen nga te boobaa dara waratul la ca dara wératul la ca ñaareel bi orweeru koor li muy foor foor soo ca amee ngant ba mënatuloo woor ngànt ga moo xam dangaa feebar mënatoo woorati dem nga ci médecin mu xool la ne la yow sa feebar bi mënoo koo booleek woor su boobaa koor ga wàcc na la te amoo ca benn bàkkaar waaye bëgg nañ nga natt mudd bët bu set nga ko jox ko miskin yi muy fanweer mudd yoo xam ne da koy joxe ña koy gam-gamle biñ ko gam-gamlee dañ ne ci liibar lay toll loolu la mazahibul arbaa wax natt ko nag fanweeri yoonam ya rek joxe ko ndoor man na bu la neexee tamit bët bu nga natt benn joxe ñaareel bi tamit su la feebaram màgget dalee nga màgget ba mënutoo woor sariya wàccee na ci yow woor ngir ngànta ga waaye bëgg nañ bët bu seen nga natt rek mu du ñam joxe ko fuqaraaw yaag masaakin ya demeet su ko defee kon koor li muy foor foor am na ca ngànt yoo xam ne bu la xasee dab koor gi wàcc na la amoo ca ngànt amoo ca maanaam ngàntal nañ la ca même ngàntaak tilim te mooy reegal dab la moo xam gësin la moo xam dereetu njuréel la muy reegal bi wala dereetu njuréel bi muy gësin koor gi wàcce gum la waaye koonteel fan ya nga ca am bu paasee nga fay ko wali tukmilul iddata wali tukabbirullah ala ma su ko defee kon jaamu yàlla koor am na ca ngant yoo xam ne bu la dalee wàcce gum na xaaral ba ngànte ga ko nga fay am ci yoo xam ne bu la dalee nekk luy continuer ngànta ga du luy tegeeku koor moom wàcc na la taamoo ca benn bàkkaar naka noonu tamit joxe asaka li muy foor foor ngànta ga mooy ñàkk soo amul nisaab man koo denc ren ba déwét amoo ko ci xaalis mën a denc quatre cent mille ren ba déwét yow joxe asaka wàcc na la taamoo ca bàkkaar fekk ba nga koy amee soo fi yoree ay gàtt ci diggante xar yeeg bëy yi matul ñeen fukk wàcc na la fekk ba muy matee suy nekkee ay nag matul fanweer nga war caa génne tabia mu war a mën ñeen fukk nga war a génnee benn wala bu ñu lee musinatu wàcc na la fekk ba muy matee su dee gëléem amuloo juróom ba war a génnee ab gàtt gëléem wàcce gum na la su fekkee da ngaa bay te matul juróomi dabi wusux di juróom benni bërigo yu manqué tuuti su boobaa maanaam ci mboq ci dugub ci ceeb yow loola wàcce gum na la comme matul loola saraxe ca waaye bu ca génne asaka comme matul juróom benni barigo te amoo ca benn bàkkaar kon asaka li muy foor foor am na ngant yoo xam ne bu la ca dabee mooy wàcc na la te amoo ca bàkkaar wàcc maanaam ngant ga nag mooy ñàkk mat am lu mat nisaab rek waaye feebar moom tere nga génnee ko xel mu naqari tere nga génnee ko nekk ndaw lu tere nga génne ko ndax xitaabul watiya la ci usul jaamu yàlla goo xam ne gàccuñ ko ci mësoor gàccuñ ko ci xel moo waral kon yooyu yëpp bu nissaab ba xasee mat te fekk mësoor agul tere da nga génnee asaka bu nisaab ba xasee mat fekk yaa ngi nekk ab dof ànd toog sa xel nañ la ko génneel ci sa alal ja kon dama bëgg a wax ne am na ngànt yoo xam ne bu la tabee tabaarakallaahu génnee asaka wàcc na la wala mu wàcce gum la te amoo ca bàkkaar aj màkkaak li muy foor foor soo amul paas beeg dewis beeg sante ba ba ca war aj màkka gi wàcc na la feeg ba loolu di dajee ci yow walillahi ala nnaasi hajjul bayti man istataa ilay sabilan istitaatu bu amul wàcc na la istitaatu nag mooy am paas boole koog dewis boole koog tamit santé bu wér boole koog sécurité ci yoon wa ñeent yi bu ci dàq aj màkka wàcc na la te amago taamoo ca bàkkaar waaye nag jaamu yàlla gu ñuy tuddee tuddee gu ñuy tuddee tudd yàlla kooka duhut luy wàcc nit ki ak xaal bu mu ko mën di fekk moo xam danga feebar tuddal yàlla nga sàngu du ko yàq moo xam danga xamut boo ci mënu tuddal yàlla da nga doon nelaw boo doon nelaw sax julliwaat ci tudd na ma nga yeewa booy xaw a yeewu ca tudd ca ca nelaw ya rek tuddal yàlla naka noonu boo ñàkkee tuddal yàlla du tax maanaam ñàkk na ma doon dabee ca asaka jaag aj màkk ga bu la dabee keroog la la tudd yàlla maanaam gën a gën a la kon jaamu yàlla yëpp am na ngant loo xam ne bu la dabee jaamu yàlla googa wàcc na la wala mu wàcce gum la ba tudd yàlla daal amul genn ngànta gu lay mën a tax ba mu wàcc kon tudd yàlla foor na foor googu mu foor a tax yàlla di wax ne maanaam tudd leen yàlla maanaam tudd goo xam ne bu bëree bëri moo tax ñu ko kuroo ak suur sun tudd leen ma rek man yàlla ma tudd kon loola mooy fooraay bu ci tegu timit jaamu yàlla goo wax yàlla utal la ko nit wala mu utal ko jamono ba mu tudd yàlla julli li muy soor soor ak la ci li mu ko ñeenti rakka boo ci gën a dóor ñaari rakka ci gën a kii ñetti rakka boo ci gën a kii dóor soo ne maa ngi capaar ci julli soo ko fekk borom waatam ni ñetti rakka koy def wala mu def ñaar wala mu def ñett buy timis ñett buy suba ñaar ni midi ñoom ñaar kon tudd yàlla am na jiit ñeent wala ñett wala ñaar lim ba nag yàlla kenn du moom yonent bi tamit kenn du moom suñu déet bi ba mu ba mu romb ay malaaka ñii dañoo taxaw rek kenn mënta tax ngiru koor ñii ru rek kenn mënta tax ñi siggi ñii sujjóor rek kenn mënta tax ñu toog ñii toog di taaya rek kenn mënta tax ñu si jóg yonent bi ne ñii de danañ bëri yool yool bi ñuy def ci seen julli yi téere woon naa yool bu toll nii sama xeet bi kilifa gu baax comme mu fekk yiw daf ko war a yéene njabootam su la yàlla joxe nga nekk kilifa entreprise bi da ngaa war a yéene sa njaboot gi lay jàppale entreprise bi ba mu yokk ñu yokk ñoom tamit soo nekkee njaboot nekk kilifa njiiteem réew da ngaa war a yéene population bi la faloon ñu yokk ca kaw nga taxawee boo dee ministre nga yéene waa ministère ba ak yokkute booy gouverneur waa gouvernance ba su fekkee maire nga waa mairie ba ak gox ba mu ëmb lépp su fekkee am sëriñ daara nga waa daara ja su fekkee ilimaan nga waa jàkka ja chef de quartier nga waa quartier ba soxna nga maanaam yow jëkkër nga nga yéene sa njaboot say doom ak say soxna ak yokkut ci seen wàllu liggéey seen wàllu jàng kenn du yonent bi yi gis si yiw feex na ko saxam te jox ko njabootam maanaam ñu jëriñoo dañu mbëggee too leelu rek paase na juróom-ñaari malaaka juróom yeeg malaaka yooya ak li ci àddu gisoo naag borom moom ganele na ko ci ñetti la ko yàlla jox jamono oktal bee ngi ci benn boisson ba maanaam jus boo xam ne soow la rek dañ koo njar njaram soow benn bi ndox rek la benn bi sàngara la yonent bi tànn njar ma yàlla ne ko tànn nga sa bindu xeet wi li nga tànn moo gën ci ñoom boo tànnoon sàngara si li ëpp sa xeet wi dañuy bew xam naa lii naan sàngara bu ñu sàngara sa xaw ma fu ñu ak lii naan ni mu bëree mu ne ko boo tànnoon ndox mi lépp sa xeet wi ci géej la lap xam naa li dee ci géej gi rawat na ci maanaam immigré clandestin bi kon bu yonantu bi tànnoon ndox ma ñëpp des ci géej gi léegi nag bi mu ko joxee ñetti xeeti boisson yooyu ganale ko muy war a ñib si kuy tukki bàyyi njaboot gannaaw boo bëggee ñu namm la booy ñib si del indi waaye kilifa bu tukki ñëw loxoy neen xale ya daw la ngaamu la amuloo looy joxe boo génnaate tukki kenn du la nangu waaye tukki ñëw ñu daw wër la kenn ku ci nekk nga jox ko ba xolam sedd fooy bëgg a tukki rek doom ya commencé jooy waaye am na ci borom kër yoo xam ne soxor gi ñu soxor tàng gi ñu tàng waat naa ci yàlla seen njaboot bu ñu ñu tukki fekk tukki wuñ seen njaboot xel nga du dal waaye bu ñu ana paa bi wala ana borom kër gi ana borom entreprise bi tukki na rek ñëpp féex kontaan loola baaxut. waaye da nga war a miinal sa bopp sa bopp sa njaboot bëggal leen sa bopp boole ko amal leen njariñ ñu sopp la ca njariñ loola ba boo tukkee ñu yëgal ko seen bopp boo nekkul ci kër gi ñu yëg ko boo demee tukki benn fan ñaar ñu namm la loolu nag am njariñ a koy joxe moo tax yonent bi bëgg ñëpp am njariñ ndax bëggante gi wàllante saawante mu ne tahaadu tahaabu dee leen mayante ndax ngeen soppante ku dul maye kenn du la sopp ku bëgg ku la sopp bul sonn del maye waaye toog tey mu xam ne maa ko gën a bon maa ko gën a soxor day jaay maa ko gën a réew ma ne mbubam réew ak soxor ak iñaan am ci mbubam ismu faayil ëpp na waxuma la mbubam afan la tafdil ñi jàng naxu ñoo xam loola su ko defee kon ku bëgg boo tukkee sa njaboot nam la da ngay am njariñ sa njaboot yonent bi tukki na moo tax mu andil ñu sérité bu tool ni julli yàlla ne ko li nga mbébétoon loola ci aw yiw ci sa malaaka yi malaaka yi nga lañ doon def lépp kenn koy def ci sa xeet yi ma fay ko ñoom ñëpp lañ doon def ñoom kenn taxawoon waaye mëntanu ko yow nag sa wii ci julli mooy taxaw jàng fatiha ku saar ganaa bi mu kàbbaaree xarmal du ca xem mooy rukkoo sàbbaal ci subhaana rabbil azim wa bihamdihi mooy siggi na sami allahu liman hamida bu ne kenn la mu boole ci rabbana wa lakal hamdu wax ñaar yépp bu dee limaan la sami allahu liman hamida ñu ko rabbana wa lakal hamdu maa moom ya su ko defee tamit mooy roos su jóot ci subhaana rabbiyal a'la wa bihamdihi su ko defee tamit mooy pare toog ci diggante ba allahumma ighfir li warhamni wajbur bi moo cay bàyyi ko su jootaat bu ca bàyyi ko bu waree taaya toog ci attahiyaatu lillaahi ba mu jeex mu jaamu di ko sëlmal moom kenn nay def lu doon malaaka yépp boole woon def lañ boole woon ma leen di fay fay ko kenn ci sa xeet bi kenn du yàlla ci bëgg yonent bi kenn du yàlla ci bëgg xeetu sayyiduna muhammad waay waay yàlla ñu yàlla fayal yonent bi yàlla ñu yàlla fayal boppam ci barkeb Seydina Muhammad sallallahu wa sallam léegi nag yonent bi nag malaaka yooyu mu romb ngi doon def loola ñetti catégorie la ci am na ca malaaka yooyu yoo na ñaari mbagg lañ am taxaw rek ñi am ñetti mbagg rukkoo rek ñi am ñeenti mbagg sujjóot rek ak la ci aaju borom ñeenti mbagg yee yàlla gendeeku ca jox ko julleen ñeenti rakkaa di tusubaar ak tàkkusaan ak jeexe borom ñetti mbagg yee yàlla gendeeku ca jox ñu julleen ñetti rakkaa muy timis borom ñaari mbagg yi yàlla gendee ko sa jox ñu julleeg ñaar rakka muy suba moo tax mu ne uuli ajnihatin masna wa sulaasa wa rubaa su ko defee kon nag kilifa dafa war a amal njabootam njariñ ku amal sa njaboot njariñ chef d'entreprise ko ñu bëgg la chef d'état nga ñu bëgg la ministre nga ñu bëgg la chef de quartier nga ñu bëgg la élimaan nga ñu bëgg la sëriñ nga ngi bëgg la ndax nit buñ koy bëgg dañ koy bëggee ca njariñ la muy joxe waaye jëmmi nit kese jarul bëgg njariñ rek la ñu bëggee waaye nit koo xam ne yaa ngi fi kenn njariñ sa loxo bi dafa dagg ci sa gannaaw kooka maanaam baaxut moo tax yàlla terexoon ko yonent bi ne ko soo bëggee nit ñi bëgg la del joxe ta wala tajal yadaka maglulatan ila unuqika mais nag wala tabsutha kullal basti fa taquda maluman mahduran lafun wa nasrun murattabun la ci ñu jàng balaaxa yàlla nee na bul banku ba xëpp banku ba xëpp baaxut waaye tàlli ba xëpp tamit baaxut ñaar benn baaxut ci tàlli ba xëpp baaxut di nga bii dafa tàlli ba xëpp moo tax li mu daj ku tàlli ba xëpp da nga daj lu ne nit ñi ay fen ñoo jox la ko pour nga jariñ leen nit dañ la sonal a sonal ba nga mujj di tëju tàlli ba ëpp baaxut tàlli bi bi mujjee tàlli ba ëpp camion yaa ngi koy sëf set euh, place particulier yi 4 kaat 4 yi Mercedes yi balaa yàgg rek soppeeku ay kàmb ami problème dafa tàlli bu ëpp moo tax accident ya bëri ca loraange nga bëri tali bu la gën a tàlli gën laa bëri accident waaye banque ba mel ni jaalaan tamit baaxut basan rek mel ni basan rek lem rek teg fale gisoo basan ba banque ba ëpp dañuy lem teg ko fale rek buñ ci amee soxla rek bañ koy soxlaa rek daf fekk mu tàlli bu paree rek ñu lebar ko teg ko fale banque baaxut banque bu ëpp baaxut yàlla nag ne boo bankoo ba ëpp dañ lay mujj yedd sa sa boo dee jëkkër sa soxna ngi ne da soxor su fekkee da ngaa nekk tamit sa doom yi dañuy mujj soxor la sa doom yi dañuy mujj di la kii boo dee chef de entreprise wala ngay président wala ngay sëriñ amuloo kenn njariñ ci paste rek ngay dëkk dañ lay yedd rek waaye nag su ne boo tàllee ba ëpp da ngay mujj loru ndax li nga xam ne boo ko xasee joxe boo léegi nga bëgg a yalwaan da nga am problème kon li gën ci ndir yi mooy digg doomu bul tàlli bu ëpp waaye bul tàll bul bul bul maanaam dab ko bu ëpp digg bi rek ndax xayrul aw awsatuha mbir yépp li ci gën mooy diggu doomu diggu doomu lim ci gën a tax yonentu bi mu àttee ñaar ña Aboubacar Omar ci diggu doomu la leen àtte Aboubacar dafa nekkoon koo xam ne buy julli julleegu jural presque soo neexul nopp la muy wax doo ko dégg bu la jiitee timis wala mu jiital ak geexe wala mu jiital ak suba biral lam nga bëri duñ ko dégg Omar ibnul Xataab nag moom bu la jiitee am nga problème dafay xàddeeku ba jàkk ji day mujj di riir ñépp koy dégg ak foo mën a nekk benn waaye nag dem kalaamaleen ma yonent bi ne ko Aboubacar de birélam gii xéeme na nopp doo ko dégg Omar moom birélam gi dafa ëpp dafay riir ba jàkk ji di riir yonent bi xool leen ne leen Aboubacar lu waral booy ca kaw mu ne ko ki may waxat comme dégg na ma jënalul ma xàddeeku yaa ñu jàngal ne alquran wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daa ida daani comme dégg na ma lu ma ci xàddeeku te ñoo la laajoon ne abaidun fa nu am qaribun fa nu moom nee na qarib la du ma ci nekk di xàddeeku di sonal sama bopp mu ne ko wax nga dëgg mu ne Omar yow nag lu waral booy biral foo tolluy xàddeeku ba jàkka ji di riir lu ko waral mu damaa bëgg a dàq ak ndëmyantu ci man ndax julli yi ñuy biral yépp benn dafa la yóbbu ci bëgg a nelaw walla mu bi bi jële la ci bàyyeekoo ci nelaw soo bàyyeekoo ci nelaw na bëgg a xeewu kàddeekul ca kaw soo nekkee ci nelaw tamit boo nekkee ci waxtu woo xam ne da bëgg a nelaw kàddeekul ca kaw ndax nelaw sori la julli yi ñuy biral lépp rek foo ko fekk ci sariya bii da ngaa bàyyeekoo ci nelaw yeewoo bu baax di tamit da ngaa jëm ci ngelaw timis dañ koy biral tabaarakallaahu dañoo jëm ci ngelaw jant bee sox te am na ci ñoo xam ne buy jant buy sox seen bët yi sox géewe dañ koy biral dafa jëm ci jant bu sox ba xaw a sori dañ dugg ca lu mat waxtu su ko defee yàlla ne la ñaari waxtu yi xàddeekul ca kaw ndax gëmantu sori la beneen bi mooy suba dañoo bàyyeekoo ci nelaw yaa ngi commencé jóge ko sa lal commencé kawe kawe ngi daanu laal mbir ba bëgg a daanu ñu ne la jàppal jàpp boobu raxasal sa loxo yi mu tooy galax ndikul sorox ndikul sëmbul mu dugg ca bët ya nga dugal ko ca nopp ya ndax lépp nga mën a xeew su fekkee xeew gi des na kabaaral nga jàll fatiha ca kaw jàng saar ca kaw jàng boobu ca kaw mooy tax maanaam ndimintu du sell Omar nag ne li ma ci jublu ci sama kàddee ko gii fu may julli julli biral damaa bëgg ndimintu sell ñaareel bi tamit dama bëgg a dàq saytaane saytaane fu mu dégg sama kàddu gi daw ndax yàlla may na ma may bu day nii yaa ma wax ne mbedd mu ne sóobu saytaane du fa daw du fa jaar ñeen fukki fan waaw comme mbedd mu jaar saytaane du fa jaar ñeen fukki fan su déggee ma jaar ca mbedd ma boole ko sama yit kàddu ko ci alquran kooku saytaane du fa jaar fukki at bi si dég bi ko tegu ci nit kàddu bii may kàddu ko su may biral di yuuxu dama bëgg yàlla gërëm ma ndax booy yuuxu di jàng alxuraan ca kaw boole ko maanaam di sàbbaal te jubloo ca ngistal yàlla dong moo tax nga def ko ah, yàlla nag ci mbaaxam dana wax ne sama jaam bi jaral na ma te ni boppam ngir man ñett yi dong moo tax may xàmmee ko damaa bëgg gërëm loo yàlla damaa bëgg dàq ngir lëntu damaa bëgg dàq seytaan yonent ne ko wax nga dëgg kaay leen ma àtte leen Aboubacar xawal a yëkkati tuuti sa biral bi Omar xawal a wàccee tuuti sa biral bi ngeen dagee ci diggu doomu te xayrul umóori aw satuha mbir yëpp li ci gën mooy diggu doomu mel ni kon ba ma toppee suba ci waxtu wi incha allahu ma saf ak yow li ma saf ak yow wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.